sama doole sama xam-xamu sama jom ak sama en direct de. perpétue la ci seen affiche point baa ngi wax ak ñaari mbër yi dimanche 21 juillet 2019 Pape Demba fii ci stade Iba production woon ñu fi ànd ceeg pare na nga pare na suuf na Pape Thiam bi fi mujj la woon. ci arène nationale mu daan tigoo xartu yaay ja daan jam soo caatu yoof bi mu fi mujj kàkku ak Boy Seye deux la fi daan kon ñaari mbëri ku ne da nekk ci dynamique de victoire waaye tey foog am ku daanu dun mag si dil moo bàyyi ko école it Pape Kane yoof moo nekk école yoof yoof mbooloo mbëru hélas bu ama bi Pape Thiam mbëru Pape Demba hélas bu ama ak Pape Demba sama ñaari xarit yi maa ngi seet hélas bu ama waaye seetuma Pape Demba mbërëm ma dafa daanu muy sang caatu yow Pape Thiam ña nga liwaatoo fausse garde ak garde normal Pape Thiam ma ngay demee gauche dem droite caatu moo takk lu xeex li ci bopp bi tent bopp bi xambe ngeen ko moom bàyyi ko Yoff dimanche 21 juillet 2019 door na day xeex moom Pape Thiam caatu rëbb na lan moo xew mbot ma gée dalay takk caatu yow Pape Thiam fu sori na Pathé Yoff war nañ la ndomba daan la Pape Thiam daan na Thiatou Yoff nee na ko jógal Thiatou Yoff daanu nga Pape Thiam daan na la jaaxle na yàggul. billahi sama yaay aw ma fayam ama koy ñaanal yàlla guddal fanam barki yonent bi maa ngi sant waa ma man wër na ma ni Thiatou Yoff Thiatou Yoff moo ko jàppee laa mu ji naa lu ma daj dama ànd ak samay mag samay rax ñu may deg ay coono yu méttee métti moo tax xamoon naa lamb ji nii rek la mënoon demee barki yonent bi kàddu naa jëjëwaay kër Massar maa ngi lay fay baay baay la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 sama doole sama xam-xamu bëre sama jom ak sama fit laa ko teg. waaye nag amateur doon en direct de. perpétué la ci seen affiche point com.